salaam euh, ñu ngi lay ñaan nga nuyoo internet yi lay seetaan. yeah salaam salaam la mi fa it's your boy AT1 from PM from Sénégal maa ngi leen di nuyu yu nekk right now di ñu seetaan au niveau national et international aussi di leen remercier ci seen invitation. est-ce que mën nga wax kan mooy AT pour nga xamal ko internet yi. Ah, moom c'est un artiste musicien boo xam ne tënkul boppam si benn musique style de musique bu nekk lay def. mais right now dama am jamu def musique urbaine c' est pour ma def style bu mel nii. mais kaw musique urbaine lan ngay woowee musique urbaine. <clears throat> su ma waxee musique urbaine mooy tënk na lépp quoi genre musique boo xamante ne c' est c' est consommé bi nekk na si musique urbaine tu comprends ce que Uh, style uh, wolof beat aussi nekk na style musique urbaine parce que musique urbaine mënoo définir benn musique rek bàyyi si yeneen musique yi. pourquoi le eighty ah man su ñu nee eighty wagwan wagwan it's what's going on mooy lu xew eighty ça veut dire genre dama jël sama tur ak sama sant boole ko croisé ko mu doon eighty wagwan moom comme jamaïcain ni koy waxee rek what's what's going on la laaj xaw ma lu xew dama bëgg indi lu xew. Salaamaaleykum Amadou Thioye Keyti Wagwan je pense que lu muy bien. d'accord d'accord donc c'est inspiré de du euh, du patois jamaïcain quoi donc est-ce que est-ce que loolu day définir ne xëy na da ngay puiser foofu en Jamaïque ah comme comme tout récemment rek lu ma la expliqué que man tënkuma sama bopp si musique bu nekk benn musique tënkuma sama bopp si benn sama inspiration yi wala lay nekk wala foofu lay dem c'est pour cela damay dem puiser si jamaïcain yi si nigérien fu nekk fu nekk bàyyi ma sama bopp dem. d'accord bi nag c'est ça. waaw waaw loolu tamit loolu laa wax man nag tënk ma sama bopp si fenn. lan lan moo la nga nga nga opté def musique. waaw musique moom su ma nee euh, musique dafa jékki saa yi nekk si man dafa yàgg nekk si man. parce que jëkk na saay rek euh, def musique mais lu xamante ne bu ma amee quatre ans la de musique nekk si parce que sama yaay sa sama mu may expliqué benn anecdote euh, bu ma amee quatre ans dama doon wëyantu son wi sunduux ma koy wëyantu wëyantu jëkk saay rek daanu prise mu jël ma yóbbu ma hôpital fan defal ma ma euh, médecin yi jël max yi defaral ma xam ne après ñu ne waaw ñu dagg sa doom bi parce que dafa jékki saa yu prise loolu garaaw na ne ñu ne ah mën na ko de sama doom bi dafa jéem a wóor yu suñu yu suñu yu suñu ba daanaka li soxla soxla xew ñu ne ah pourquoi pas ñu wóor yu suñu mais bu ñu père bi sama yaay mënul def dara en tant que ak sama sama père rek il faut mu d'accord ba pare quoi tu comprends mu woo sama papa sama papa ñoom ñoo koy def pas de soucis ñun moom bàyyi li may gérer ba mu ko calme c'est pour cela sama yaay moom chaque jour loolu may wax. chaque jour daf ma ne ne nekk ci yow parce que en 2007 laa enregistré sama premier single ma doon dem school ko ma jël 8 heures midi ma daw ko dem studio aw nekk si ah, bon am ainsi nekk si musique bi vraiment. mais premier single boobu noonu la enregistré en 2007. vidéo la wala waaw un un son parce que dama ko featuring ak benn artiste bu euh, Gambien bu tudd Royal Message maa ngi koy saluer de passage bu nekk Gambie sans ma nekk dara foofu. bon si ñoom ñaa si ñoom laa doon nekk xam nga ñoom ñoo ma tette nii parce que ñoom ñoo ma doon yoon bi xam nga ñoom it ci xam nga waaw am na talent bi nekk ci soo fi nekk rek yàlla dina la defal dara. Euh, depuis 2007 est-ce que sa ay production elles sont régulières da ngay produire lu bëri wala daf am na stand by wala. waaw ah, depuis 2007 dama duggoon tamit si ay euh, comment dire ay groupe yu bëri ah ñaari groupe yoo xamante ne ñoo en place Cushman Killer Mariste nag nekkoon naa moom tamit liggéey moom ay single yu bëri jóge si moom dem Black Melo bu nekk Baobab def nañu ay single et tant que ay clip tamit. naan ay clip suñu duggee si YouTube yi gis ay tiwaan waa ñu gis yenn clip boo xamante ne jot na ko def ak date date yu mu euh, def ci clip bi quoi comprends mais actuellement bon yàlla dafa def ma nekk ak sama producteur boo xamante daf ma signé CAO Africa maa ngi remercier si sama producteur bi ci biir chéri aussi ak sama ménager Franco. def nga ay vidéo yoo xam ne c'est solo wala tu as une solo duo la wala tu as solo. non non en fait li ñu ne musique moom euh, des fois balaa ngaa dugg si yow kese il faut nga am foo jaar parce que jaar-jaar yi moo tax nga mën a xam yow li nga capable de def te jaar-jaar yi li nga war a def. c'est pour cela instant yi right now à part de xam nga maa ngi nekk di def sama carrière solo yoo xamante ni bu am ay féetewoo yeneen projet projet yu war a mën ko. D'accord, d'accord. Sinon, à part ça da ngay am nga album amagoo album. non instant yii moom amaguma album. te si yoon bi quoi. ñoom si yoon bi xool parce que ñoom ñoo ci kaw ñoom nga ne defal li defal li nga def loolu. man li mooy bind wër. yaa ngi def ay concert yaa ngi participer ci ay concert wala. waaw maa ngi def ay conseils yoo xamante ne am na fii si yenn school yi si si tout récemment demoon naa tamit si yenn en Gambie demoon naa fa concert xam nga tamit bon loolu la quoi mais demaguma si conseil yu mag mag mag yoo xamante ne comme bon ay 72 heures yi tout ça demaguma si. Mm-hmm. en dehors de sa ay activités musicales. Mm-hmm. à part musique bi est-ce que am nga ci leneen loo yëngu. yooyu yooyu à part musique bi maa ngi di jàng parce que damay def développement web à part développement web bi aussi maa ngi nekk di yore sama agence su benn sew bu nekk Toulouse boo xamante ne day def affaire de top modèle si aussi maa ngi nekk si cinéma yi waaw parce que tamit xam nga man tënk ma sama bopp si benn affaire waaw ah, maa ngi si lépp. mais bu loolu yëpp weesoo est-ce benn indiscrétion rek glissé tuuti. ah non man xam nga lu ma lay wax euh, man actuellement wax dëgg te neex yàlla dama lay wax de mariage nekkagul sama xel parce que jeune la te liggéey instant dama sas te yoonu liggéey moo nekk sama kanam dama war a liggéey liggéey bu baax. après nag loolu dina xam. mais sa copine bi nga nekk est-ce que xam nga yéen mariage nekkagul sa xel boobu loolu moom dinaa ko partager le maximum ñu gis ko ndax mu xam ne mi mariage nekkagul sa xel. mais sinon à part kii yi nga jot a nekk yëpp à part mariage puisque boo nekkagul instant bi di sa projet. pour loo xam ne war nga ko réaliser dans dans bref délai. waaw man li ma war a réaliser mooy def sama mission ci musique bi wax dëgg te neexal parce que il est Sénégalais yi dégg lii ci waa Goana loolu rek la. Hmm. Hmm. mais sinon à au bi ngay doog a parce que souvent paa yi moom xam nga dañuy xaw a métti est-ce que amul woon benn réticence par rapport ak musique bi ki nga bëgg a def bu ñu doon. Ah, man avant tout sax man damay gërëm sama yaay quoi parce que sama yaay mi ngi jàppale quoi sama yaay mi ngi yàgg conseiller. sama yaay moom yàgg euh, wax na ma nit ki loo nekk rek dem si ak fulla ak fayda te ma yàgg gëm ci musique bu may bu may def ko tu comprends c' est pour cela père yi sax yi sax mais yi suñu waxee sama yaay def na tout pour convaincre convaincre sama papa sama papa bëgg na ma def à cause moo tax ma gën a gëm musique bi ma gën a jàpp xam ne right now moom sama côté famille alhamdulilah alhamdulilah kon yal na yal na yaa ngi nekk noonu mais euh, ci musique que am na ci référence par exemple kenn koo xam ne c'est de la musique koo xam ne sa référence la comme on en voit souvent da ngay gis benn artiste bi la man sama kii la j'aurais vraiment voulu nekk mel comme moom wala def au moins loo xam ne dara ci li mu jot a def dans la musique. am na am na am na parce que man bu ma lu tax ma dem Ghana musique moo tax ma dem Ghana bu ma demee Ghana am benn artiste bu xamante ne avant muy suivre sax de présenté nañ ma ko quoi muy Stone Boy from Ghana xam nga man kooku mooy kooku laa yàgg déglu kooku laa yàgg kooku moom may inspiré inspiré ñu ko kooku la quoi. avant suñu mot de fin. Mhm. wala yaa fi mën wala yaa fi gën tayale say fan fàtte yàlla gën gëlëm gëlëm gëlëm gëlëm xamoo fi nga jëm bëgg a ne ci lëndëm munoo ci am daam rappeur yi ràbbatuñu dañoo mel ni ku ñàmbale. seen son yu bon yi day daw sama biir def ma saan ñii de dañoo ëppal te dañoo làkkale ñoo ngi tëb di dal mel ni dof rek yu juddoo faan dem ba léegi ñoo ngi foog ni dama daanu tey seen son yu bon yu bees yi tax na mënuma oncle <laughs> lii moom punchline <laughs> waaw mais bon c'était waaw c'était c'était bien c'était riche et c'était bien recherché ak punchline il faut rek ngeen dugal ko ci sànni xeer quoi mais lan ngay tàggatoo suñu internet. ah man avant tout maa ngi xam nga sama staff aussi di nuyu sama waa koñ Petit Mbao aussi di nuyu sama frère sama cousin Pape ku xam te yàgg na nekk ci man jàppale ma te yàlla tax dara bu mu doon dara di nuyu sama DJ Chéri waa sama producteur. di nuyu Franco di nuyu gars yëpp gars yëpp gars yi genre mënu ma yem fenn quoi mais aw ma Sénégal daal maa ngi leen di ziar di leen jaajëfal wax leen ne nag tamit yi rek laa leen a bu mel euh, di la souhaiter une très bonne continuation ak beaucoup de succès. Euh, merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal ci bi ak ITV merci aussi si invitation kontaan naa trop. waaw li ngeen defoon defoon naa est maa ngi leen di ziar jaajëf